dañu fi ñëw fii tey ànd ak ambassadrice bu Union européenne son excellence Irène Mingisson ànd ak ambassadeur bu itali ak ambassadeur bu royaume d'Espagne dañ fi ñëw euh, ki ñu dalal mooy ANIDA projet boo xam ne ci ministère de l'agriculture la nekk li ñu fi indi mooy tey dañuy réceptionner ñaari fukki tracteur yoo xam ne maanaam ferme yi nga xam ne ANIDA daf koy créé encadré ndaw yi ak jigéen ñi ci gox-goxaan yi ci centre Sénégal maanaam ci ci Saalum ak euh, bët Saalum réew mi euh, pour ñu mun a jël jot yooyu tracteur balaa nawet bii di tàmbale. donc gëm nañ nag boo fukki tracteur moom boo ko yóbbee ci gox wala ci région loolu day soppi xar kanamu mbéy mi foofu Macky Sall dugal na ci Sénégal. maanaam à près ñaari junni tracteur tracteur boo ci yokk maanaam progrès la yokk nañu moissonneuse euh, ñaari fukki moissonneuse ci vallée de fleuve Sénégal barke démb dinañu dem yokk ginnaaw suba ñanti moissonneuse ci vallée de Lanambé tey ANIDA ak ñooñam réceptionné nañu ñaari fukki tracteur gëm nañ ni li ñu xaar ci mbéy mi pour que bu nawet bi passé Covid bi jóge fi suñu àll bi yëpp naat ñu am ñu góob ay ceeb ay gerte ak euh, ñebe lu bare bari ndax ñu fàtte mbas mi dugg ci leneen ñëwaat ci suñu plan Sénégal émergent